ربا بأهل بدر رفع دين المصطفى ذي القدر محمد صلى عليه بسلام بآله وصحبه جار الظلام أسأله بحق بسم الله تسخيره لي ذوي الملاهي له توجهت مع الرجال usdil idal muzahaziihil awjaal lahu tawajjahatu biman qad sabaru alal ida wa man siwaahu adbaru huwa alladi nasarahum wa ayyida wa jahadu lida jihaadan jammada aw jihaadan jayyida akramahum bil afwi wal gufraan إذ قاتلوا العداد ذوي الخسران له توجهوا بالاحتساب وكرموا بعدم الحساب رضي عنهم المكرم الغفور إذ دوخوا بإذنه ذوي النفور حتى الكريم جملة الخطايا عنهم وساق لهم العطايا ورضي الله عن شيخنا قطب الأقطاب wa xaatimil awliyaai sayidina ahmad sayidina ahmad attijaani samsilu huda maljail anaami man haaza fi zarwati lmaali bi rafi shaani sama maqaamuhu fi lula tasaama walam yazal fi lalaa saama wa radiyallahu an cheikhina xaadimi rasuli ahmad bamba radiallahu taala anhu ila tuuba ila cheikhi lxadim yasiru bihi alhawasir alzalim wa tuuba walmawahibu haysu tarnu tuakkidu annahu hibatu lkarimi fa ahbabtu lxadima wa kulla haadin ila arrahmani bizikri lhakimi wa ashkuru rabbiya al ala bi bamba wa ma abqa li ruwaati lulumi fa man arafa alxadima wa farra minhu fa ahmaqu minhu wa lam arafi lanimi wa radia allahu an ilallaamati alaarif billah ceerno ahmad boynaaji radi allahu taala anhu cheikhi wa jaddi ceerno ahmad la amru rabbi innahu habibul ahmad inni la ashkuruhu wa ashkuru ahfaada fi qudrihi bi tadayudi lixsaan wa banuuhu unzuruhum bi ayni inaaya wa shamlatuhum bi rida rida nawraani wa radia allahu an kulli man intama lahu bi wuddin aw mahabbatin fanaala min allahi bisababihi aazama qurba nafaana allahu bi ulumi ceerno muhammad samasa xafidahullahu wa raa ilaa cheykhin ilaa cheykhin li maatam minhu faxrun tanazzah an yakuna lahu nadiru wa limla walmurabbi lilmadaya kitaabun laysa yublihi duhuru waliyun kaamilun hissan wa maanan aliyun fi tawaaduihi kabiru walahu maa cheikh ahmad bamba haalun walahu fi kulli ma yumla huduru yo allah yoɓ ceer mouhamad samasa wa usallimu salaman abi kal kawna ɗayiban wa arafa salamun law yuqasu bittahayya yura ala wa agala fi lbaraya wa ahsanu min liqa'i min muhibbin liman yahawa wa min kulli lhadaya ya ahala yaa ahala yaatal mbindim alquran ismahuli bismi shakhsiyan wa bismi kaafati usrati sayidi alkhalifa ceerno ahmad boynaji radiallahu taala anhu umuman wa khususan alkhalifa ceerno cheikh ceerno ahmadu boynaji hafidahullah war a wa khususan li akhina fi llahi abil imaadi maanaam parrain abil fadli fi kullil masaliki sayyidi ceerno ahmadu ibnu ceerno alfahim suulatul ilmi bila humuudi ala llahu qadarahu ala almuluki walmamaliki wa hafidahu duniyan wa ukhra wa adama lana wa lahu mathabatun inda allahi wa ajara fa ya lillahi darruka ya ceerno ahmad ta fa yaa lillahi darruka min jalilin alayhi rama malabisahu aljamal fa asbaha fi shamailihi qaida alayhi min aljamali yura jalalu wa asba ahmadu isman wa wasfan wa akhlaaqun lahu fiha kamalu alhamdulillah alyawma fi lxaflati alqalamiyati almaymunati almubaraka qad italatu fihi ala ma amart amaratni siyadatuka wa ja'altani ahlan li hadhihi almafada ma innani la astahiqu bi dhalika aqlan wala naqla kono waman kana misli kayfa yakunu ahlan liniyabatika fadalan an akuna mukhadiban fi tilka alhalaqati alqalamiya ma kuntu ahlan lidhalika ma kuntu ahlan lidhalika lakin lamma ra'awni غدوت أهلاً yaa yaatal mbindum alquran hum saadaati jahuhum azim wa abduhum laa yazaalu mawla walamma amarat amartani bidalika tahattama alaya almusaara'atu lilxidaabi amma hunalika igtinaaman li du'aika saalih wa adaan li xaqi iqtiraa'ika fi hada sa'yi raabih summa nasihatu li ahli lbaari xayrun min aljihaadi fi lkuffaari kama qaala cheikh ahmad bamba radiallahu taala anhu fa qultu wa ala llahi istanattu wa min bahari cheikhina mouhammadi samata istamattu yaayaatan mbindum alquran ahlan wa sahlan billadina awudduhum wa uhibbuhum fi llahi di l alaa'i ahlan bi qawmin saalihiina dawi tuqaa garri lwujuhi wa zini kulli mala yasawuna fi talabi ljihaadi bi iffa wa tawakkurin wa sakinatin wa haya lahum lmahabatu ljalalatu wannuha wa fadailun jallat an lihsai ahlan bikum ya duyufana ya yatan min alquran saidna biliqaikum lyawma lam yakun lhaflu haflan bidunikum liqaukum وحضوركم شرف لنا أسعدكم الله كما أسعدتمونا أشرفتم الحفل بحضوركم الكريم أهلا ومرحبا بكم أضاء فوت تور بوجودكم شملكم الله برعايته وحفظه حفظكم الله ورعاكم وحفظ خطاكم يا رب يا رب يا رب هب يا تلميذ القرآن منك قوة إنك أنت الكريم الوهاب أسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لأداء الأمانة وأن يعيننا على القيام بمسؤوليتنا في حقوقه وحقوق عباده وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين إنه هو الغفور الرحيم أيها الناس أيها الناس فإن أشرف العلوم وأفضلها wa atammaha wa anfaaha lil qalbi huwa al ilmu bi kitaabillahi azza wa jalla qiraatan wa hifzan wa fahman wa tadabburan wa amala li anna kitaaballahi azza wa jalla huwa asaasu shari'ati hadhihi al umma allati faddalaha allahu ala ibadihi wa innama yuayyinu wa innama yuayyinu ala fahmi al qur'ani wa tadabburihi wal amali bihi ko an yaxfidahu l insanu an zahri qalb wa laqad fatahat fi biladina hadihi sénégal yaatal mbindim alquran fi quran mutaaddadatin wa innani uhissukum ayuha al awliyaa ala an tashajju awlaadakum ala al ittihaaqi biha lima fi dalika min al ajri al azimi lakum haythu wajjahatum awladakum wa fiha aidan maslahatun lil awladi haythu yahfazuna kitab allahi wa yaktubunahu an dhahri qalbin wa hum sigar لأن الحفظ في الصغر لا ينصى وفيه أن الإنسان لا بد أن يتأهر إذا حفظ القرآن ولذلك تفرق بين الأولاد الذين يحفظون القرآن ويكتبونه والذين يحفظونه ولا يكتبونه ولأن حفظ القرآن يؤين الطلاب على أداء مهمته الدراسية كما هو مشاهد معلوم في فوتا فإنك لو سألت الأشياخ في المدارس التي يكون فيها من طلاب المجالس aw min gayrihim la qaalu laka inna tullaaba almajalisi afhamu wa alamu wa atqanu wa addabu kadi wa innahum yubarrisuuna ala gayrihim hada huwa almaruf ولذلك يخطئ خطأ كثيرا من قال إن إدخالهم لهذه الحلقات يضيء أوقاتهم عن دروس أوقاتهم عن دروسهم وما علم المسكين أن آمر الطلاب أن يكتبوا bi anfusihim afdalu min kathirin ma yudarrisuunahu fi madarisihim wa annahum ida xafidu fi hada alwaqti li hifdi kitaabillahi azza wa jalla kaana hada awla wa awla bi kasiri min idaati hada alwaqti fi laswaaqi yattauzuuna wa yuuzuuna annaasa wa tudiu awqaatahum hamala qaala lana cheikhuna ceer mouhamad samasa zata yawmin wa ba'du ayyuhal ustaazu anta ala tahzibi zat tifli laa taxafal wala taxbi wal taksuhu min jamilil xatti bahjatu xatta yura bahjata xatta yura duraran fi kulli muktatabi ayyuhal ixwa inni uhisukum jamian kullu man lahu waladun an yalxaqa awlaadahu bi hadihi aljamaa yaatal mbindim alqur'aan lima fi dalika min alfawaidi alazima walaw lam yakun fiha illa annahu wasilatun li ibqaa'i hadihi almadarasa ani hadihi almajalis asala li annaha ida kasura tullabuha fa innaha sawfa tadhabu wa sawfa tazul wa lidalik wallahi aarun ala biladina sénégal lida uhissukum marratan saliha an talhaqu awladakum bi hadihi aljamaa wa an tustiinu llaha azza wa jalla fi tashjiihim alayha wa tawajjihihim ilayha wa innani daaminun lakum annahu maa husni niyati wa salahi alamal fa sawfa tasaabuuna ala dalika inda allahi azza wa jalla ayuha almuslimun laqad kaana annabiyu sal allahu alayhi wa sallam yuclinu fi jum fi xutbati aljum'a yaqulu inna taalima alsigari kitaabullah yudfiu gadballah xayrukum man ta'allama alqur'ana wa 'allama qala cheikh ahmadu bamba radiallahu taala anhu uahidu llaha ala axdi alkitab bi xidmati lil ashyaaxi baabi sawaab zahara li anna atisaman bil xidma wa taalimi alkitaabi huwa sawaab wa ha nahnu ashyaaxi ala ahdillah ila an nalqiya allah fa naamalu minkum allah tansawna bi saalihi adiyatikum وقد قمنا نيابة عنكم في مواجهة سيدي وشيخي وحبيبي تشيرنو أحمد ألفا ودعونا لكم مما نرجو من الله قبوله والله أسأل أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه آمين صلى الله على سيدنا محمد وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين أنا تلميذ سامسة عابد الرحيم min ardi matam dawlatul ahbab assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu e min ƴeewa tonngude ɗum mi annda kay wolof walla kay pular ha mi tenku e caggal yettude allah e julde nelaɗo sallllahu alih wa sallam e ceernajo o ceerna men ceerna amadou alpha lomtini o o adori fof ko yettude allah o yetti allah e nelaɗo mum o kadi sernaɓe men wonɓe e nder région mo matam e nanduɓe ceerno men ceerno amadou boyinnaji e men ceerno amadou alpha e men ceerno mouhammadou samasa e men ceerno aliou thiam e woɗɓe woɗɓe waaɓe noon e nder région mo matam kadi eɗen poti yettude allah ha no on jii dariɗo oɗo ina haala ko ɗum gandal sénégal gandal sénégal woni ɗo wona pagga yiiɗe ɗum caggal leydi ko gandal sénégal wadde eɗen jogii gandal yo allah hebbin waaɓene makko ɗum o idi yettude o yetti kadi ceerno amadou alpha niang ceerno men guiniraɗo ñalawma o caggal ɗum ɗon kadi o du'ima wonande yimɓe ɓe fof yo waɗan en jaam o kadi joom sharika o c3s o haali heen jimi keewɗi mantoji c3s o ɗum ɗon haa no kadi o yetti ceerno men ceerno alpha ñang o wi o yettorimo ko ko suɓimo ko yo e dow inde makko yo haal e kanko wona gandal makko wona haydara kono ko ceerno suɓimo yo haal e dow makko o wi kay won wonɓe ɗo ɓurnoɓe handude hen wona goɗɗum kono noon ceerno suɓimomo pour o haala e dow inde mum ndeno jogui cuusal ndeno jogui softede pour wawde haala hayso woni o anda ko ɗum ko woni ɗon omo andi kay ko ustude hoore makko tan e wasde mawrikinade o haali hen o yetti ɗum o weltima kadi ko ceerno tottimo ko konngol eyyi ko tottaji yimɓe woɗɓe ko o waɗi o kadi o du'ima wonko haali heen kadi hunde wande fayida ha no feewi o wii yimɓe ɓe yoɓe ƴettat sukaaɓe ɓe ɓe ɓe nder duɗe qur'ana he yoɓe ƴettu sukaaɓe maɓɓe ɓe mbaɗa ɓe nder duɗe qur'ana he gila sukaaɓe ɓe heɓe ngoni sukaaɓe ɓe jannga qur'ana o haali heen o fotti heen o yii heen nafoore haa no feewi o wii c3 s ko waɗata ko yo yimɓe ɓe fof ittu ɓiɓɓe maɓɓe mbaɗa heen par ce que tan ceerno o kadi o haali o wii won wi'ooɓe janngoowo alqur'ana kay tardamaji ngoni alaa kay tardama alaa kay nafoore ɓe ngoni ɓe tardañi wodde goɗɗum ɗum kay woni ɗum ɗo kono qur'ana gonɗo heen tardañi yo yimɓe ɓe ɗettu ɓiɓɓe maɓɓe ɓe mbaɗa e nder e qur'ana ɓe janngina ɗumen par o haali heen nafoore heewnde e ganndal on nani o haali hen nafoore hewde e ɗum ko haali ko par ce que o haali hayrukum manta alamal qur'an ɓuuri moƴƴude men fof ko gandanɗa hoore ma on janggoɗo qur'ana ha gayni kadi wone jangguide qur'ana e, e hadis goɗɗi ha heewi oɗon oɗon gandi kon seernaɓe ɗum ɗon fof ceerno haali ɗum eyyi kadi o wi so yimɓeɓe jangi qur'ana ina usta secret allah wadde qur'ana o so janggama ina usto ceggol allah nafoore mawde ha heewi ceerno o haalatno kadi onon fof ko haali ko ne heewi kono noon en hen tongande ɗum kono ko weltare tan weltare ko almudo ceerno samasa kanko ceerno men parin men wino haala e dow inde mum ko jannguɗen heen ko yankinade makko e fottude yimɓe e ɓe yo janngu e hollide yimɓe halifaɓe ɓe fof koɓe gootum e ndeer sénégal fof amsal ceerno ahmadou bamba ɗe eh, jaaɗa hannde fof ɓe gandanoma kamɓe gardi koɓe gootum e hono wayde ceerno samas en wadde ɗum ɗo ceeni ko halifa o yino yo haalno heen min eti tongande on tan wassalamu aleykum wa